internationale. Sénéinfo International. YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak bitim réew. Sénéinfo. mu demee ca jàkka ja wala ca jumaa ja nga yëg ne ñi mi ngi en construction ñu koy bëgg a tabax wala ña ngi koy tabax góor góorlu ca lu toll ni nii ko bu ramatu benn picc bu ndaw la fu mu fanaan yomb na benn birig mën na caa fanaan boo tabaxalee yàlla ci kaw suuf néeg bu toll ni néegub ramatu yàlla borom bi subhaanahu wa taala dina bu yowmal qiyaamee tabax ma tabaxal la kër ci aljanna loolu nag yomb na waaye jamono dafa évoluer néegu ramatu léegi kenn tabaxut yow góorgóorlu ba ne man kat dinaa tabaxal yàlla benn néeg bu toll nii sama néeg bi may dëkk sama néeg sama kër néeg bi ngay dëkk sa kër yoo fanaan yaa ngi njaboot war ngaa góorgóorlu ne man dinaa ko tabaxal yàlla ci jàkka ji lu néew néew boo fa joxe benn une tonne de ciment wala weeru jot boo amee sa mille franc mbaa sa deux mille franc mbaa sa cinq mille mbaa sa dix mille nga dugal ko ca sëñ Babacar dina ñëw incha allah Mbaye Diouf nga dugal ko ca balaa yàgg rek mu baax te gis nga jàkk ak juma rëlum jamono yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dimbali waate jàkka daan dimbali waate koñ bi da gis nit ku am soxla am aajo mu feebar mu mu jënd ay ordonnance am wala ñu génne ko location wala amul lu mu joxe dépense jàkka dalay dem duñ ne lu waay am lu man de duñ taxaw comme niñ koy defee suñu jàkka yii lu waay am lu waay man kër ga ordonnance déedéet day ñëw diis ko ñu ko war a diis jàkk ji génn ci keesu jàkk ji ñëw dimbal ko ñu ko wax baytul maal yonent yàlla Muhammad yoroon pourquoi pas ñun jullit ñu def ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu war a war waruñu mën a yegg foofa suñu jàkkee keesu dara te normalement jàkk ji war nañ koo defar ba mu rafet lool mucc ayib waaye xaalis bu bëri des sa soxla yi loolu mooy rulu jàkk jullit bi loolu mooy rulum ci jàppale yàlla borom bi subhaanahu wa ci liggéeyam ndax dañ naan jàkke yi néegu yàlla la waaye ñun dafa mel ni li ñu déene néegu yàlla yu bëriwul ñun li ñu yéene néegu yàlla yu bëriwul kon war na ñëw nañoo góorgóorlu takkaat suñu tànk tubay pour jéem a góorgóorlu ci jàkkee jumaa yi jéem a góorgóorlu ci daara yi nga jàkkee dañ ko tabax bu ñu ko tabaxoon defuñ daara lislaam jam ñu waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al madaarisu qabla al masaajid nee na daara yi ñoo jiitu jàkka yi buñ mënoon njëkk a tabax daara yi ci kaw door tabax jàkka dañ koy def waaye daara ji ci kaw lay tege kon bu ñu amee li ñu bëgg dañ koy tabaxandoo incha allahu taala léegi nag yow mi nga xam ne yaay julli dëkk ci koñ bi wala nga dégg ko wala leneen ak leneen dana mbay ci sewewu tànk Eh, ñi ngi sante bu baax suñ benn waay Tafa Guèye jàmbaar la moo ko waa koñ mengeen ñoom dañoo digg affaire bi rek commencé commencé def ñoom et ce weer wala passé indil na ma quatre-vingt mille euh, trois cent ne ma ci bi ne ko lii la baax na mille neuf cent ne ma ci jàkka ji ba ne ko baax na soxla ay millions nag a lay jox quatre-vingt mille ak soixante-dix mille ah buñ gën a yokk dina gën a baax buñ amoon eh, téeméer yu mel ni moom balaa yegg mu baax yéen ci misaal laa lay jox misaal buñ ne woon buñ ne woon tey ñun ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk weer wu jot weer wu jot di nga dugal deux mille francs ci jàkka ji deux mille francs ci jàkka ji buñ ci amee cent personnes cent personnes buñ ko deux cent mille taxaw na bu ñu amee deux deux cent personnes quatre cent mille franc taxaw na bu ñu newoon cinq mille tey bu ñu amee cent personnes un million sa weer dinañ ko dugal ci jàkk ji waaye fi mu toll jàkk ji mënul dugal cent mille kon foofa palier boobu war nañ ko weesu ku ci nekk war nga jël engagement ne man kat weer wu jot dina génne nangam dugal ko ci jàkk ji sa doole fa mu toll nag sa doole fa mu toll. liggéey bi daal ku ci nekk na nga jàpp ne yow yaa koy liggéey ku ci nekk góor jigéen mag ndaw na nga jàpp ne yaa koy suñu yaayee ay jàmbaar ba ñoom parce bi ñu njëkkee woote fii pour toilette yi ak lu ci Maroc bi xam nga ñaata lañ dajale jox ma ko boo boole li def cent trente ko ci loxo ba Maguette Ndiaye jekk-jekkalaat jënd climatiseur di faraat kon jàmbaar la ñëpp bu ñu balaa yàgg rek mu baax kon. xam naa kàddu yi du gudd waaye ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax rek méthode bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a teg ne nii lañ bëgg a travailler ba ci sa doole fa mu cee participer ndax yéene nit ñi jàmm yéene nit ñi yiw moo tax ñu bëgg ñëpp participer ci bu ci xeeb li nga am si laa bu mu xeeb li mu yor góor gi soo bu mu xeeb li mu yor te dafa am lu ñuy wax jaayante sa jaayante yunteelu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu xare xare xare masaana ñëw ñu bëgg a dem xare ji wala yenn situation yu xew saxaaba yi dañuy ñëw ci saase toog yunti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu waxee pare ñu ah, man da jaayante naa ak li nga bëgg dinañ ko def nga bëgg dañ koy def léegi-léegi dañuy tàmbali tey dama ne dama bëgg tey jii lañ wax ne cérémonie de lancement n'est-ce pas boo gisoo loolu ñu mooy dañuy lancer projet bi kon li ñuy def tey la war a tàmbali buur gi soo may bu yore dix mille dama ko jox léegi ñu tàmbali keneen ku yor mille francs mbaa deux mille francs jox ma ko ñu tàmbali ñu xam ne ñun kat tàmbali nañ ak cela ñu xam ne tey jii tàmbali nañ cérémonie bi dégg nga nii la waaw kay mu nga ko yow quinze mille ko jox maman Sera moo jox cinq mille moom ci la bokk nii lañ ko bëgg a liggéeyee tey tey tey dañuy tàmbali liggéey bi sa 5000 francs bii nga joxe wala sa 2000 wala 1000 francs yi wala 500 bi bu ko xeeb balaa yàgg mu nekk millions yu bare bare bare bare balaa yàgg mu nekk millions yu bare bu ko defee nag boo demee seeti kilifa bu doon laa dimbale ne la ah ñaata ngaa amagum nga ne ko man day dajale gum naa 50 millions mun naa ah, yow neex ngaa dimbale dina neex a dimbale asal waaye bu fekkee buñ la woowee ne la ñaata nga am ne ah man de amaguma dara ndaw. yow doo neex a dimbale moo tax olof ne mbay ci say waxu tànk kon nañu góorgóorlu bu baax a baax tabaarakallaa wax dëgg yàlla ñu ngi leen di baax bëgg mu ne a ñëpp indi bu ko defee nag tey jii ku ne li gi yow weer wu dee di nga ci jàpp ah bu neexee yàlla maman Sila yow bi nga joxe mooy sa jaayante. weer wu jot danañ la laaj cinq mille waaye nag dina ëpp cinq mille yow ndax sa rakk yi da ngay da foog ne leen chaque weer ñu joxe dégg nga ndax yow imam Sële mooy sa waajur yow imam Sële mooy sa waajur ak imam Sële ku tudd ji mooy imam Chérif Aïda dégg nga man la yéen seen jaay am si bi am na loo ma waxoon de dégg nga na nga na nga na nga ci taxaw kon jaayante baa ngi am na yu ñu defar yoo xam ne pour ku ci nekk sa participation selon buñ ko buñ ko globalisé normalement jàkka ji chaque weer war naa mën a dugal dix millions parce que yaa ngi may dégg te loolu yomb na waxuma ñëpp mën nañ ko waaye ñu bëri mën nañ am na ñoo xam ne mën nañ joxe par par mille francs par weer am na ñu mën a joxe deux mille am na ñu mën a joxe cinq mille am na ñu ma a joxe dix mille am na ñu mën a joxe lu ko suñ bàyyi wax dëgg loola buñ ko buñ ko buñ ko respecté ñu buñ ko respecté ñun chaque weer wu dee jumaa ji lu lu néew néew dix millions dina jëm lu néew néew dix millions dix millions buñ ko defee nag balaa at mi xaalis lañ am dara buñ seetee Assane Ndaw mu jox ñu dix millions balaa yàgg mu bëri kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax jàpp ñoo koy defal incha allahu taala xam naa sëñ Malick kàddu yi foofu lañ ko yemale comme que ñoom délégué tabaarakalaw président ñoom Thiam ak ñi fi nekk ñëpp tabaarakalaw kàddu dinañ eh, dinañ dinañ gën a jël kàddu bu gën a yaatu waaye yëg na daal mbir mi tàmbali na tey mbir mi ku ñu war a seeti dañ allah ba ci président de la république ndax moo jëlee Sénégal nañ ko seeti su ñu naan toog ak moom toog ak moom moom suñ biir yëpp ah? ah waaw waaw yëpp xaar incha allah wa rahmatullahi